jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ne ñoo ngi fii jàmm gën buntu ko Siteu fekk gars yi ñu toog di waxtaan ñu bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb ji bëgg waxtaan ak ñoom ci fay euh, bi ndax nekkoon na bis boo xamante ñëpp doon nañ ko xaar ndax làmb joo xamante def na 2 ans bay dugg 3 ans am euh, waaj bi defe naa ne war na metti ma bàyyi ki nga xamante ni mooy Abou Ndiassé jege trop Siteu ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan wi Abou nuyu naa la waaw Ouzin ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yeneen bi sant samay ñaari waajur ma lay fay bu baax di santaat sama sëriñ sëriñ si di Mbàkke bu baax a baax a baax a baax di waat àddina di waat ñëpp di bëggee si ñëpp daan nañ daal. gis na combat bi wàccaay li métti woon na ndax combat boo benn combat boo xam te def na deux ans defe naa mosu leen trois ans boog mosu leen waajee waaj bu demee noonu ngeen waaj ba démb bés ba démb naka ngeen waajee. waaw ji démb boo ñu gisee ni ñëwee sax xam ni fonk nañ ko torop te démb ku ñu gisee stade bi xam ne ñëwoon pour xër-xër ñëwoon pour xat-xat tey keroog maanaam képp ku ñëw stade bu ñu fa gisee non dinañ may nii tey nan lañ ñëwee parce que jaaxal na ñëpp dañoo ñëw dal woon yar ak teggin ak ngor ak jom di xaar suñu ndam parce que lu ñu gëmoon la combat bu ñu fonkoon la. mais démb ñu gis ci Siteu benn mature boo xamante ni. gis mosuñu koo gis ndax dañoo ñëw gis ko mu ànd ak dal ànd ak tey ñu gis ne ba ci tuus bi sax Siteu tuus bi daan na gën a xumu noonu daan na gën a yàgg noonu mais maturité boobu mu am la. waaw ah, boobu Siteu dafa nekk ndaw dëgg la am na kilifa am na lépp mais tamit dafay déglu ay gaayanam te gaay buñ buñ jugee sama làmb gaay dañ toog waxtaan lu bëri xool affaire ñàkk fulo yi sew yi yi nga xam ni donte ne ñun dañuy ñëw pour neexal làmb mais làmb da ngay ñëw pour neexal ñu ne da ngay yàq léegi ñëw nañ toog mu mel ni ñun mel ni tamit làmb ji gis nga nu mu demee te dañoo ñëw ku ñu gis démb xam ni ñëwuñu tey sax pour sabore dañ ñëw pour jël seen ndam ñibbi. billaahi wal kitaabi. mais démb euh, moment bi Siteu tuusee ñu gis ne tuus bi xaw ngeen ko changé lu tax ngeen changé tuus. waaw tuus bi du changé xam nga nit dafa am loo xam bu bokkee sa cosaan da nga ko war di fësal di ko jëfee donte ni feccee lu la neex mais njuub dafa bokk ci làmb dafa dafa nekk fecc bu góoree. nekk nekk feccu làmb dëgg la fecc kele neex na trop mais dara du njuub. Mm-hmm. démb dafa dellu cosaanam. bi bi Siteu tuusee ba pare naka nga ko gisee attaque de ndax mbër des fois dina tuus nga xam ne kii tey bés bi du baax wala kii tey nekku ci dara bi mu tuusee ba noppi lan ngay yëg ci moom. non Siteu dëgg la ñun ndam lañu andi woon te Papa Sow ñoom moo provoqué yàq làmb ji rek parce que xam na ni tey du baax parewul Papa est-ce que est-ce tamit loolu provocation la. yàlla xam na ni provocation la xëy na gars yi de dem maa ngi seetaan télé ay sidi yenn sidi yeeg mais nañu maanaam nañuy wane fee bi fu mu commencé xam nga am na solo. bul jël fee bu ndaw bi da ngay jël fa mu commencé. mais fee bi ma yaakaar ne bi bi bi tëggkat bi sànni ko sànni ko sabar bi lool loolu moo nekkoon fee bi coow li. non non fee bi demeewul noonu ñun heureusement tey fu mu doon gën a si ñun coow li xawoon si ñun mais ñoom maanaam ñun lu ñu daan gis ñu ñun boog ñu ko doon def ñun gisuñu ko su ñun parce que góor soog moo jugee seen cumbukaay moom kese jaar noonu si wetu géwél yi yor benn gàllaaj ak lii jiili ne ko taxawal. ma yaakaar ne sarax la yoon di ko yóbbu. non non te yow bu fekkee Papa Sow sarax moo ko tax a jóg li tax Gora bi ko policiers yi jàppee ba yóbbu ko fi mu ne woon la moo tax bi ñu ñëwaatee ñëwul pour saraxi mais foofu te Papa Sow moom moo moom moo ñëw Franc moo ko jox béjjën xaw ma góor soog bi nga ko joxee béjjën bi mu ñëwee dafa avancé booy dafa dem ba si ñoom vidéo yi ñu ngi fi. béjjën la wala suukar la yoon di ko sa la yor si loxoom Papa bi muy ñëwaat góor soog moo njëkk a dem foofu. andi fa coow jeunes yi sax dañ ko téye ndax xam nañ ne nekkul si dëgg Papa Sow si la si la góor soog demee boobu Papa Sow fukkaat moom di ñëw. mais gars yi nañu wane loolu nañu wax ak Papa xanaa waxuñ ñu dafa mature dafa intelligent. mais wane nañ vidéo fi ñu koy fi ñuy sànnee Papa Sow ndënd bi. léegi nag nañ wane Papa Sow fi mu jugee ba ñëw di jéem a jam nit gis nga nit dañu waxante dëgg. Papa Sow dafa am ku mu bëggoon a jam. bien sûr nañ xoolaat internet bi même bu ko jamul tamit dóor na fa coup boo xam ne maanaam loolu béjjën boobu mu yor comme si daloon mën na la rey. léegi nag loolu moo andi coow mais Papa bu yow mbër yëpp xam nga ni boobu ñëpp ñëpp bëri nañ moom ak rek a kon kay moom warul maanaam warul mën a nelaw sax bay dem bay fowee làmb ji moom bu bëggoon làmb jam am non yaakaar naa ni combat yëpp jeexoon na xëy na nag bi surtout tuusee ba génn ba mu xool kii noo xam na noo booy bi ma doon wax internet wul wala internet na non dina xoolaat quoi. kon li li gars yi di wax ne tëgg kottu si tey ñoo yàq làmb ji yow accord ci du ma si mës a d' accord parce que tamit buñ buñ fàtte ni ñun ñun nii lañ doon ñëwee làmb ñun ñuy sikk mais gars yi lu ñu bëgg ñun ñu ñëw toog wane yar ak ñëw làmb pour làmb làmb ji dégg nga policiers yi ñoom ñu ñu foogee woon sax ñoom da leen bett ndax dañ ñëw lu ñu wax ñu def ko te lu ñuy def dañ leen di ñaan ñu ne ñu def leen wala bu leen def te bu ñu ko deful dañ naan dama leen booy toog leen parce que tey ñëwuñu pour coow. billaahi wal kitaab bi ndam moo ñu woon Papa Sow moom moo pare woon pour daanu xëy na kay yàlla moo ko suturaal mais Papa ku xam làmb ak mag ñi ñi nga xam ne ñu ngi fa woon estat ku fa newoon yoo xam nga ni Papa Sow moo tooñ. gisee Papa Sow deret ji sang ko amoon nga yaakaar ne dina bëri waat. non Papa Sow man xam naa ne du bëri yow yow yow si tàngi tuus ngay jooy ñu koy wane ci télé bi duñ duñu woo naan naan mais Papa Sow lu muy jooy kon looy jooy. mais tuusu tuusu tuus si te lu ci Papa Sow di jooy. waaw mais dem déggoo ñun laa la biñ nekkee si ci làmb ji bi si te tuusee ba pare Papa Sow mu ngi jooy Papa Sow bi mu ngi jooy lu muy jooy. laaj naa la ko. te yow di nga pare di jooy Papa Sow nag gëm yàlla xam ne moom champion la Siteu man doomam la wala mu nekk rek xam mais gis na moom moo saboté làmbam Papa Sow bu pare woon bu pare woon pour bëreeg Siteu non yaakaar naa ne kon du demee nii quoi mais waru ko mën a ñaawal ba pare naan dañuy procureur nañ dem si procureur bi gën a mag xanaa Sénégal xanaa dëkk bi amul amul yoon. nee na day topp affaire yi. xam naa ñu nit xam naa ñu nit xam naa ñu nit duñ ñu nit duñ ko topp. fu mu dem ñu dem fa ci des parce que gis nga gis nga dafa am loo xam ne neexul nit ki mënuloo tooñ ba pare ñu nekk si internet bi ku nekk di wax te ñu xam ne moo la tooñ Sénégal bàyyi nañu làmb ji ni fi nekkoon nañu xool li ñuy wax. ngir yàlla mais moment bi Papa Sow gaañoo dañoo gis surtout dugg ci biir géew bi di yeggali ay gàllaajam di sangu di waaj mel ni kuy bëre ba simeeku di bàkku. parce que surtout gaañu na fi gaañu bu gën a métti bi te CNG gisal nañ ko seen bopp te pourtant dafa bëre. Siteu guy combat guy xeer bu mag lañ ko xaañ bopp bi ngaan te pourtant dafa am ngoru bëre Papa Sow nag xëy na li tax bëriwul moom moo xam mais Papa li mu foogoon moom moo nekkul li mu foogoon nekkul parce que toog na ci internet nee na Siteu da newul si dara amul doole moo mu bañ a gën mais moom bi mu gisee Siteu xam ne kii bëgg na combat bi torop te billaahi da doon daanu. Papa Sow da doon bu ñaaw bu dog bi da koy dóor sax mu daanu. parce que combat bi dañ ko fonkoon de mais lépp si ngor ak jom ak sérénité ak maanaam mot matière moo ñu fa andi woon. yow ñun yow ñun booy seen ñun li ñu daan def si làmb démb moom la Papa wu def si làmb pourtant am na benn booy bu doon bëri si ñoom bu dëkk xaw ma paaseel xaw ma pourtant ñaata benn booy xaw ma xaw ma ko sax mu ngi sol grand bu mais ñaata foofu la ñëw fa pour perturber ñu booy bëgg naa si kon man leen hey man leen yem leen fii du làmb ji làmb ji fële la. mais loolu yëpp ñu bàyyi ko muñ ko muñ ko heureusement man nag fenn rek laay sante xam nga tey man xam nga tey man affaire man fu ma doon méttee far mu ñëw moom suñu cumbukaay ba loolu dalee ko fa mais yow Papa Sow warul sax fipp di xeex ak ay tëggkat bu dee moom mbër la Sénégalais nañu xoolaat li ñuy wax parce que moom nit ku moteur la ñoom nee nañ Papa moo fi gën a intelligence moo gën a yeewu si mbër yi moo si mais Papa Sow démb affaire cuune la def ndax affaire cuune weesuwul weesuwul Gora Sock def benn affaire xam nga mu war Gora Sock nag si ñu yàq làmb ji si la bokk moom moo yàq làmb ji waaw. gars yi nañu nañuy wax lu mu demee. mais mais ñu gis làmb ji euh, joxuñ victoire bi ñu ci bay dëkk jàmm gën ñoo ngi doon kaas est-ce que buñ jàppaatoon làmb ji pare ngeen pour bëriwaat ak Papa Sow. non loolu instant bi duñ si wax parce que xam nga ma doon duñ si wax Papa Sow na waxee neneen mënoon na waxee neneen mais moom rafetalu ko. rafetalu ko waaye ay waxu ay ay na dem xaw ma ay pelanteeg ay xanaa nit ñi yow xanaa fii dëkk bi amul loi wala dañu jàpp ne ñoom dëkk bi amul loi wala ñun luñ dëkk ñun bàyyi ñun ñun doomu banlieue lañ sonn de ñun déggoon na ma la banlieue lañ dëkk mais dañ ci fier ba pare dañoo gëm li ñu doon te fii xoola wax jee bari rek mais fii moo ëpp góor yàlla moo ëpp ay dóorkatu waar ñu nga gis ñëpp ñëpp dañuy liggéey xëy liggéey am xaalis lañ xam mais suñu dëkk bi maanaam way wi la rek ak nuñ koy tuddee mais ako bëri ay góor yàlla. laam fi mu toll nii làmb ci fi mu toll nii. non pour l'instant nii luñ ciy waxati parce que ñun bàyyi combat trois ans bàyyi dafa métti. lenn rek la moom. jàppoon tam mystique bi daf cee xaw a bàyyi trop. ñoom ñoo ko wax ñun yëguñu mystique ñun li ñu yëgoon mooy ndam boo ñu gisee yow yow mais yow dama laaj yow waa jàmm gën bu ñu ñëwoon ñoom ñoom ñu daan làmbee ñoom ak gémi ak ñoom a ak làmb ji ba a ji si dañuy mujj sax jéppi mais démb ku ñu jéppi wala nga meroon ñu rek non xoolaatal sa bopp quoi parce que am na la ma nga war a xoolaat sa bopp. parce que yow munoo ne man c'est que xam nga laay Papa Sow xanaa du mbër bu mag. naan la de bëgg naa ku ne. waaw moo tax nag démb def na affaire xale moom ñun liñ daan def. démb Papa moo ko def. su ma déggee wax ji daal mooy da nga gis ne Papa Sow jàpp na ne tey du baax le mu ñëw saltel bés. mais bien sûr du baax démb mënul woon baax ñoo ko gënoon soxla fop mais gaan ku ñëw pour yàq làmb da ngay coow rek mais démb ñu da ngeen ñu gis ñu coow fa kenn ku ànd ak Siteu da nga ko gis mu coow ak waa kër Papa Sow wala yi talu ñu leen sax góor a soog njëkk na ñëw fi Siteu di jaay mu sotti fa sunguf booy bëgg naa si ko man leen garaawul fii du làmb ji ne leen dem tijji beneen porte. xam la ba pare ñoom ay tàppet lañ nan ngay ànd ak mbër nekk si kanamam ngeen xule bañ koy gaañ. ñu àndoon ak Papa Sow. parce que ñoom ñemewuñu man du ma ànd ak mbër man. balaa ñu koy gaañ man la ñuy gaañ ba pare. ñu daw mel ay jigéen bàyyi fa Papa mu dóor booy bi béjjén bi dalu ko booy bi ba xam si ci ay affaire détails yu ñàkk fu la. lan ngay wax ñi nga xamante ni démb ñoo fa ñëwoon di supporter ki nga xamante ni mooy Siteu ndax gis nañ démb ni ngeen def stade. waaw loolu mosu fa am parce que démb li nga fa gis lépp Siteu moo ko andi ñu ciy sant yàlla nag di santaat ñëpp di wax nag làmb ñun. ñëwewuñ ci pour violence wala wax wala lii ñun si fair play la ñuy ñëwee saa su ne parce que màgg nañ ñun léegi dañoo màgg dañ daan ñëw di neexal làmb ñu ne dañoo bëri problème léegi ñëw nañ toog ñu bëgg ñu safaat yu kenn xamul pour lan waaye nañ xoolaat li ñuy wax nañ xool fu fee bi jugee man loolu rek laay wax loolu tamit am na si importance balaa ñooy wane nañu wane fu fee bi jugee commencement ba fin. nit ku siy wax na nga wax lu loo xam ne maîtriser nga ko parce que Baye gis nga lii nii affaire àddina la rek day jeex lu waaye wax di nga ko waxaat sa biir bàmmeel. lan ngay wax Siteu ndax njott naa ne tey la anniversaire. waaw Siteu ñu koy wax mu dund dund dund dund dund waaw dund ba découragé. yee lu mu dund doyul ñun ñëpp loolu lañ koy ñaanal suñu deret la suñu gaañ la waaw di wax daal dëkk bi xam nga na ñëpp jug xàccandoo dóorandoo am na yeneen booy yu fem ñoom ñëpp yàlla na leen borom bi defal ndam ñëpp jug jàppale leen parce que ñun gox bi lañ am de amuñu beneen gox bu dul fii waaw taxe mu jàpp daan rek te xam ne boo bee ne yàlla du ko dimbali si man. mais parce que maa gën a pare foofu mais borom bi xañ na ma maa ngi sant mais taxe buñ koy andi dina def ndànk parce que combat dañ ko fonk tamit day dal day def ndànk ba jël li mu soxla. man xëy na keroog te moo ma xañ li ma am li ma ñàkk mais sant naa yàlla na ko victoire bi jik mais ñu ngi bëre taxee na xam ni combat la am tamit combat mënul yomb man ñu ngi wax mais gaynde gi laa doon xaar mu bëre rek instant bi pare naa pour bëre bàyyi ma fi benn mbër amuma xaritu mbër non dama fi lim benn mbër xam nga mbër yi sax mu toog gaalem di actionné <laughs> ah te ñu ñu coow waaye làmb mu ngi fii ñun baax dañu bëgg di ñëw nii làmb di neexal mais ñëwuñu pour ay problème sooy ñëw naka nga na ñëwaate comme ni ñu ñëwee démb rek yar ak teggin dal gérer suñu làmb parce que ñun coow jiguñu ñun ñu ngi bëgg xam suñu bopp waaw ñu ngi bëgg xam suñu bopp ak sëñ Tuubaa kontaan naa ci yow. naa la bu ragal dara jaamu ci yow.